Cheikh Tall ñëw yéen ci parole de Cheikh Tall ñu ñëw yéen ci xeetu triant yeeg naxaatekat yi nekk ci dëkk bi waaye nit nag li nga bëgg rek ci lan lay nax gis nga ñi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam heure boo demee jàmmkat yaa ngi jub seen kër rek commencé si kar commencé yëkkati ñi bëgg sëñ Tuubaa noonu la gaa yi def ak ñoom ñi bëgg diine noonu la gaa yi def ak mais ku bëgg àddina surtout jigéen bu bëgg àddina ak yooyu gaa yi dañuy dem ci parking yi gis nga parking yi bi doxul de moo dox gars yi dañuy ñëw jël benn oto mën nañ ko louer un mois indi ko statut ci synap ci def ci lu ne ba mu tii ñu ne tey ñu indiwaat beneen sama Prado bi ëllëg ñu ne sama Range bi sama kii gis nga appartement vingt mille francs man nga ci am sax bu la neexee almati nga am ko léegi nag waa ñëw na la sama kër bi nekk fee sama kii naa ba tey nga gëm foofu lan la jaar buñ la jekkoo ba nga xam ne que yaa leen topp seen ginnaaw nag fekk c'est trop tard nga nit yi ñooñu nag ñooy tas dëkk bi dinañ takk dinañ takk di bàyyi dinañ dugg ci lu ne kon nit ki jiitalal ku am kóllëre ak ngor ak diine te bañ a jiital matériel sinon di nga dugg ci tof doon asalaamaaleykum Cheikh Talif ñëw yéen ci parole de Cheikh Talif ñëw yéen ci wàllum wujj di wax que ne jigéen ñi nan tey nan moytu ci wàllum wujj góor ñi tamit nañuy wax dëkk nit booy signé da ngay signé loo man dugg ci loo man wax dëgg def dëgg moo gën nga signé benn jabar ñëw naan damaa takk fee ak ay takk suuf yooyu doon ko moytu bu baax a baax beneen bi wujj ñaar ñu bokk lu mu bëgg la yow dèjà booy seetaan football rek nga bëgg Real boo gisee ku bëgg Real da ngay kontaan ku bëgg Barça tamit nga gis ku bëgg Barça da ngeen di bokk lu ngeen bëgg la il ñu gisee ko nu oyof te bañ ko rëyal bañ ko mittital di xëppante asib xëppante diwlin bu tàng yooyu daray àddina jar ko fi jigéen ñu bëree ngi ni tey bu ne woo góor sax lu ci ëpp dañuy béppee boo xam ñu ne góor jaralu ma yàq sama crédit wala jaralu ma nangam ak yooyu bu dee ah ay ndox tàng yooyu dafa ëpp daal def lépp ci daal te xam ne àdduna lu fi waaye def lu lu rafet rëccu lay mujj. salaamaaleykum Cheikh Talif ñëw yéen ci parole de Cheikh Talif ñu ñëw yéen ci baatu rumeur rumeur dëkk bi nekk une deux nga dégg ñu ne la Viviane tas na Bouba Ndour takk na jabar Macky Sall nee na lii loi sangam nee na dëkk boo xam ne que nit ñi duñ wax lu leen leer dëkk bi euh, diw tas na lu ne nga fi dégg euh, jigéen bu góor góorloo ba am ñu ne ay la waxoon ni def am. góor góor góor góor góorlu ba am ñu ne borom ñaari tur la maanaam góor jigéen jigéen ñu ne ko lesbienne wala day jaay boppam bun xamul ci wala boog ñu ne la formation yooyu yëpp bu leen tëë nag ñu ne leen ah diw ak a baax sëriñ mu mel na léegi dëkk bi nit warul mën a liggéey euh, liggéeyam ñàqam may ko mu mën a am lenn une deux ay rumeur Sadio ne takk na jabar nangam bañ bañan ko ba journal yi sax buñ ci bind buñ ci bind lu jëm ci lu ñàkk fayda euh, du jar normal dëkk bi nekk nag rumeur bi ak diw takk na ñaareel diw takk na kii wax yoo xam kenn du xam fan la ñuy jóge tax fenni kese moo gën yokk wala sos te dëkk bi nekk rumeur daal am na fi doole lool kon ku yabbu moytu mais boo nekkee ci dëgg bul faale boo nekkul ci dëgg nag del sóoraale ñu bàyyi ko xel bu baax a baax salaamaaleykum Cheikh Talif ñëw yéen ci parole de Cheikh Talif ci Tektal TV ci YouTube bi ñu ñëw yéen ci wàllu anniversaire anniversaire gis na ne am na doole lool léegi ci dëkk bi anniversaire lu am solo la anniversaire lu màgg la bis nit ki bisu juddoo moom euh, kenn du ko tuutal dañ ko war a fonk ko jox ko ci rek mais na mu ëpp la ni bañ parce que jàppal leen boo fi nekkee daaw ba ren santal yàlla te jàpp ne dooleeku nga atum lëm ci sa am na sa morom yu ko fekkewul mais noonu ngay sant tamit noonu nga war a tiite xalaat ne li nga waroon dund bu doon cent ans la manqué na benn at yaa ngi gën a jege dee nga def ci farlu bu baax te xam ne temps baa ngi dem xale yu jigéen nag fi ñu ko bëgg a yóbbu léeg-léeg ëpp am ñeenti anniversaire ci année bi day ëpp def ko business boobu day ëpp anniversaire tamit bu moytul nit ñi dinañ bâché ndax fan jëm bul bëgg àddina ba yan loo mënul di dugg ci loo mënul te bul mere kii ci anniversaire ak ne te jigéen ñi dégg naa lu ci ëpp anniversaire sax yaay paasal sa bopp booy booy dem wala yaay fayal sa bopp lekk gi yooyu yooyu nañ ko siiwal ñëpp xam ko noppal. Cheikh Talif ñëw ak ci parole de ñu ñëw ak ci wàllum euh, jaawale fulla ak fayda ak soxor ak nit ñi dañuy juum léeg-léeg ku am fulla ñu jàppe ko ku soxor léeg-léeg nit ki soxor ñu jàppe ko ku am fulla léeg-léeg tamit nit ki euh, oyof ñu jàppe ko ku ñàkk fayda nit ñi nga rus leen ñu jàpp ne da leen ragal maanaam yi ni jaawale fii. moo bari te war ci tey di wax ne nag fulla fulla mooy li la war nga nekk ci soxor nag mooy loo xam ne que yéene woo kenn lu baax dañuy seen koo xam ne que day jaay nit di ko leb lu jar ay deux cent cinquante ki cinq sant mu naan ci lii lay suturaloo ba du jox ba ba yemale kook ñëpp di leen wan ne li li ñu dëkke moo baaxul mais gis nga cinq mille jëm suuf mënu laa yëkkati nga jëm kaw mënu laa yëkkati nga wàcc mënu laa wàcc kon na rafetal lépp lu mën di doon te bañ a tiit bañ a gëmadi mais am ful ku la leb fayu la boo lëggee bu nar a lebaat na metti salaamaaleykum Cheikh Talib ñëw yéen ci parole de Cheikh Talib ñu ñëw yéen ci wàllu mbaraan mbaraan nag buñ koy gis nga jigéen boo jàppee ne yaa ngi nax góor ñi da ngay nax sa bopp gis nga góor bi ngay yaakaar ne yaa ngi koy nax ba jël xaalisam indi sa mag bu góor wala sa rakk bu góor mu jël ko nax ba lekk xaalisam da nga xam ne waa ji doful de te jigéewu te dof xam ne li muy def bu baax a baax di wax jigéen da ngaa war a liggéey benn gëm sa bopp gëm yàlla bu dee liggéeyoo tamit ba yoroo yenn yi war la nga oyofal say bëgg-bëgg te bàyyee ko say parents papa yaay nijaay bàjjan ñu ñu resal la ko ñooñu buñ mënul kii ki nga jàpp war na la takk mu resal la loolu sinon tamit nga yemal sa bëgg-bëgg parce que xew yi léegi yii ak événement yi jàppal leen benn fan la te heure jigéen ñaa ngi ca soble ba góor ñaa ngi ca xarma 15 heures day fekk dootoo mën dara léegi loo ci teg timis jot bis bi jeex ku ci lebi bor am problème léegi nag orange money sax tax na góor ñi fenatun bu baax a baax ndax wari ma ko ma ko mais lépp solo daal mooy gëm yàlla te maandu ak doylu jaajëf. salaamaaleykum Cheikh Talif ñëw yéen ci parole de Cheikh Talif ñu ñëw ak yéen ci coono jigéen jigéen euh, coonoom bokk na ci euh, bu mele ni mu war a mel ñi ko bëgg dañu war a bari te ñëpp mënuñ jot ci moom ci kenn rek la war a jot kon coono ji ñii nag buñ ci jotul ne dafa réew ñii ne dafa fermé wu ñii ne dafa tëju ñii ne yëgul nit bu oyofee ñu ne dafa dafa ñàkk fayda moom fii lay nekk du lu ñor mu wax lu ñorul mu wax bu ki nii ñu ne dafa bari caractère bu bu sëyee bu sëyiwul ñu ne ah, Effenberg la jël na nangam at war naa sëy bu sëyee fay ñu dal ci kawam ne ab faykat la bu dee dafa dem borom këram gaañu ñu ne dafa ay gaaf bu juree doom doom ji baax ñëpp ne suñ doom la bu doom ji bone ñu ne doomam ji maanaam jigéen ak ñiy dóor jigéen yii yëpp dafa war a xewi te xam ne jigéen euh, sunu yaay la. Euh, sun mag la sun rakk la na kenn ku ne di xool sa mag bu jigéen sa rakk bu jigéen loo nar a wax nit rek nga xoole ko noonu dara du ñaaw. ñu ñëw ak yéen ci parole de Cheikh Talif ñu ñëw ak ci wàllum baadoola baadoola mooy kan booy wàññi xaalis ci wetam day jàpp ne war naa jot wàllam baadoola mooy dégg ngay wax téléphone lu yoonu nekkul mu pare di la nettali ki nga doon waxal li nga doon waxal baadoola moo doon ko xam ne que loo ko defal ci teraanga day jàpp ne yayoo ko moom du jàpp ne yaa baax. day jàpp na force la baadoola moo doon koo xam na que boo ko deful ñaari at lu baax bis bu la tegee loo mënul nga teggi ko mu bàyyi la àddina ak àllaaxira fu mu toog yàq sa der baadoola moo doon ko xam jàpp na ne moo bëgg lu baax moo gën ñëpp yemut ak kenn yére bu mu sol sax bu yére bi seerul dina wan ne moo fi seer lim sol mooy qualité ni muy watoo fa muy watoo moo baax oto moo baax dara baaxul baadoola daal dafa jàpp ne moom lépp lu baax pour moom la lu bon pour ñeneen ñi la kon nanu moytu dund dundi du baalu la daal tag de te daal salaamaaleykum Cheikh Talib ñëw yéen ci parole de Cheikh Talib ci Tektal TV ci YouTube bi ñu ñëw yéen ci bëgg siiw bëgg siiw ba di ko forcer daray àddina jaru ko ndax euh, boo siiwee loolu siiw siiw siiw dina am ñu la xamul gis nga am loolu siiw siiw siiw dina am ñu la talul am na ñu xam ne xamuñu luy Messi Cristiano Ronaldo te ñi ngi si jàmm te gis nga siiw danaan siiw du jàmmi borom mais bi dul jàmmi forcé dugg ci tooxi doonu ba àdduna bi yëpp di la mbamb nga xam ne xaru ji rek moo jege si yow wala toxu gën dëkk bi ñu naan la temps yi yaay bës yaay def succès bi gis nga bës Sénégal am na ñàkk jot goo xam ne que lu mën di coow bu buñ ko coowee deux semaines pare nañ ci dem ci leneen sa jëf nag des ci internet bi nga jóge fi mu nekk fi say doom màgg mu nekk fi nga nekk mag mu nekk fi nga bëgg ko fi jëlee munul nekk foog ko fa dugal buñ ko fa génnee tam day continuer des fi nit xalaat di tey te xam ne bu njëkk gis nga yii ngeen di dëkk ñu am na ci dëkk bi yépp mi ngi fi daan am internet te demeewuloon noonu léegi nag moo tax bu lu am rek day gaaw si kon nit ki bu mu forcé na tey te xam ne lu baax dina ñëw lu bon mu moytu ko mais nettali baa ngi fi daan du fi jóg ba mukk salaamaaleykum seetaan ñëw yéen ñëw yéen ci li am ci dëkk bi mooy léeg-léeg nit di bay bayal xale wala Euh, ku la jege muy def lu dul yoon nga seetaan ko wala nit bu siiw nekk sa wet waxoo ko dëgg muy defi toj-toj ba mu ëpp ñu naan ndogalu yàlla la ndogalu yàlla lépp du ndogalu yàlla leen li ñu ne saytaane la saytaane dem dañ ko yam waroon na am avocat leen koy jiñ lépp ba xam moom la léegi itam ñu ne xelu xale la xelu xale euh, xam na mu nu lijjante xaalis magum jëm xam na mu lijjante xaalis ñu naan xelu xale la wala mu def toj-toj bu bare ñu ne wérul ah ku wérul xam nga dina dawal oto te da ngay gis ku naan wérul muy dawal oto nan bàyyi leen te xam ne nit ki buy def yoon lu mitt lu dal ci kawam na jàppe na nattu la mais bu wàccee yoon lu mitti lu dal ci kawam na jàppe na mbugal la kon def yoon ànd ci yoon seetaan kuy def yoon te bañ a seetaan bañ a ànd ak sax ku dul def yoon lii mooy ngëneel bu ko defee duñ la kaay attab yaa fi def lii lépp jàmm jaajëf. salaamaaleykum Cheikh Talif ñëw ak yéen ci parole de Cheikh Talif ñu ñëw ak yéen ci nitu intérêt nitu intérêt du lu baax nit da ngay sonn ngir nit ñi nit ñi sonn ngir yow. mais yaakaar ne yow rek yaa bëgg lu baax yaa nite yaa wér yaa yow la bàmba demal géej loolu day ëpp del nemmeeku nit ñi sang di leen soxla del tal nit ñi sang di leen soxla foo déggee nit rek lii laa bëgg loolu àdduna du doxe noonu am na ci ñoo xam ne que bu nu enregistré sa numéro sax euh, du yàgg ban woola wala nga woo leen mais li tax supprimé woon sa numéro bëgg nañ bu nu defee stat sax nga gis ko nit yi affaire intérêt yii nit ñi di du dund moo war a wàññeeku te kenn ku ne xam ne lu baax moo jur lu baax lu bon moo jur lu bon kon nani tal nit ñi te lin naan am am nit ñi moo gën am alal mais da ngay jariñ nit ñi di leen jariñoo mais pas nga leen di jariñoo te doo leen jariñ kon nit ki sonnal ngir nit ñi nit ñi sonn ngir yow jaajëf salaamaaleykum Cheikh Talif ñëw yen ci parole de Cheikh Talif ci Tektal TV ci YouTube bi ñu ñëw ci wàllum rëy rëy moom doomu aadama mënu ko def yàlla rek rëy doomu adama nag mën na rëy rëylu ngand ngand lu jaay affaire mais bu nelawee fàtte li xew buñ ko gaañee mu fàttali xew bu diggante bu ndaw mën na tum ranke da ngay seen koo xam tekkiwul dara naan du ma jël numéro bu ma xamul loolu fan lañ ko teg nit xale booy wut da ngay nangoo ni yomb jot yomb gis disponible pour mën a xam fa ngay jëm nit nag boo taxee naan une deux tekk ku juddu di liir bi ku dee di néew bi ku la la raxasu mbaa boobu mu faxasu am na ñoo xam ne que buñ commencé tekki dara tuuti dañuy fàtte nit ñi ne ah ça va yow la tikkan ah waaw ok ok jaay affaire yooyu yëpp indi problème nit da ngay oyof ba maasee suuf si benn bul ñàkk fayda nag bën lay dëggte am fulla ak fayda oyof te xam ne àdduna yàlla rek fi am valeur te lu la waay jaay lu dul ab taalibi rek bàyyi ko moom jaajëf